gannaaw bu ñu sante yàlla di julli ci yenent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ñu ngi amal fii plateau spécial euh, ci journée bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul xaar daf ko woote mu jëm ci euh, jàng alquranul karim waaye dundal li nga xam ne mooy xasida yi ak waajal li nga xam ni mooy euh, màggaluk Tuuba bis bi nag mu nekk bis bu am solo ndax alquran moo ne la in sakkartum la azidannakum bu ngeen ma sante ma dolli leen yàlla moo ko wax ci alquran waaye wala in kafartum a azabi la shadid bu ngeen ma weddee mbugal maa ngi tege solo bi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha wote na ko ci wàllum xasida bis la boo xam ne daana am waaye ren nag dafa am ci beneen anam boo xam ne bokkul ak e, ni mu daan amee te mooy tey dañ ko gën a yaatal yaatal gi ñu ko yaatal mooy xasida yi damay wax ne toujours dafa am solo am gi mu am solo mooy Sëñ Tuubaa dafa taalif ay téere téere yi daf ko taalif mu nekk téere diine téere diine yoo xam ne pour xam-xam la pour jàng chariatul islamiya téere yu mooy tasawudu siqaar jawaru nafis nahju qadail haaj mu laynu sudur mu naweru sudur jësbatu siqaar masalikul jinaan téere yooyu boo koy jàng téere la yoo xam dalay jàngal pour chariatul islamiya dañ koy jàng fépp ci àdduna bi ba ci Tuubaa Mbàkke gi mu taalif yeneen i téere yoo xam ne téere xasida la xasida yooyu mooy li ngay di jas bu mawaayi bu muqaddamaat euh, téere yooyu ay xasida la xasida yooyu mooy yi nga xam ne tawassul la ak tagg ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu taxoon ñu ne nag kon nit ñi war nañu ràññee lan mooy téere diine yi Sëñ tubaat taalif ak xasida yi nga xam ne nii daf ko taalif pour ñu koy jàng xasida yooyu nag moom la sëñ bi wootee ñu war ko jàng waaye war ci wàcceewaale ay kaamil alquran nag ndax déclaration bi dégg nañ ko kaamil alquran yoo xam ne pour bisu ñaan la Euh, bisu ñaan la bisu lëlu la fépp foo xam ne doomu aadama bi yaa ngi fi ci biir Touba nga ubbi sa jumaa nga ubbi sa jàkka doomu aadama yëpp dugg ci biir jàng alquran ba deux heures wëlbatiku jàng xasida yi salatu ala nabi ci mboolem jumaa yi nga xam ne moo nekk ci biir Touba yëpp waaye mboolem jàkka yi nekk ci biir Touba yëpp ak penc mu nekk ci biir Touba noonu lañ koy dundalee fii ci Touba di ko dundalee foofu ci njaareem di ko dundal ci Thiès di ko dundal ba Mbuur di ko dundal ba dakaar fépp rek fu man di doon nañu toog kenn ku ci nekk jéem a dem ci xasida yooyu ak alxuraanul karim boobu solo gi mu am nag mooy jàngal nit ñi ndax suñ tubaab waxoon ne yaa a subaan in xiftu moo xajjal fa qaddimoo tahalluman ala hamal yéen waxambaane yi su ngeen ragalee gàcca dem leen ngeen sàkku ju xam-xam bala ngeen a jëf dara na ngeen jàng ba xàmmee ràññee parce que ñàkk jàng ak ñàkk xam ak ñàkk ràññee mooy waral doomu aadama toujours dañuy jël càllala yeew ko ci sa biir baat su boobaa nag dangay nekk jaam ba faw looloo taxoon Sëñ tubaa teeloon a jóg taalif teelo yooyu Sëñ Tuubaa taalifoon na ci Masaalikul Jinaan ne fa lay sa yujubu sawaadul jismi safahatal fa wa su al fahmi nekk gi ma nekk africain nekk yore der bu ñuul gàtt kawar taxut ma ñàkk fayda taxul ma gàtt àlliwa taxul itam ñu yaafus taxut ñu deltu ginnaaw loolu taxoon ñu naan laa Sëñ Tuubaa dafa ñëw pour goreel li nga xam ne mooy euh, der bu ñuul loolu nag su boobaa xasida yi du lu ñuy tiim nii rek di ko jàng waaye dañ koy jàng di ko firi di ko jàng di ko xamal doomu aadama yi waaye comme ni ñuy jàngee tasawur si xaar ak jawar nafis di la ko firil ba nga man koo jëfe noonu lañ lay jàngalee xasida yi di la ci wax li ci suñ tubaa wax suñ tubaa moo waxoon ne innal habiba lasi yurdihi safku dammi dammi ala lun lahu fil illi wal arab daf doon wax man sëñ Touba li ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaral jëralu ko kenn ñu ne ko ah mu ne man sëñ Touba bala maa am mbégte dëgg dëgg dëgg dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam bég mooy man sëñ Touba ma tuur sama deret ma tuur sama deret ngir sëñ Touba bég ngir yonent bi alayhi salaatu wasalaam bég loolu moo tax kon war nañ gën a jàngal nit ñi li nga xam ne mooy ah, ah, xasida yi firul ko doomu aadama yi sëñ Touba ci wàllu tagg yonent bi waxoon na ne jaawa sukkahab wa hazan man day Kaxab a Xasan bi nga xamante ne bi ñoo daan way yonent bi alayhi salaatu wasalaam man romb naa leen bu yàgg yàgg yàgg yàgg Sëñ Tuubaa waxaat nañ ci xasida yi daan ne képp koo xamante ne da ngaa gis sama téere wala mbind moo xam ne dañ ma ko askanale neen na nga ko jàpp te fàggu ci jaamu yàlla laasim kitaabatan ma yaatika muntaziban ilayya wax sut bihi lillahi muhtaziba mu ne bépp téere boo xam ne dañ ma koo askanale man Sëñ Tuubaa na nga ko jàpp man Sëñ Tuubaa na nga téye téere boobu ngir jublu ci li nga xam ne mooy jaamu yàlla wa amma bi ma bi rabbika fa hadis yàlla neen su ma la joxee teraanga teraanga boobu nanga nekk loo xam da nga koy wane kon bis boobu daa nekk bis boo xam ne bisub jaamu yàlla la bisub ñaan la bisub jàngale kan mooy Serigne Touba la ndax xam nga fii ci Touba soo ñëwee ci jumaay Touba jii tey dañ fiy jàngale mboolem téere yi sëñ Touba taalif muy tasawur si xaar ba ci masalikul jinaan soo demee ci dëkk bi ñu mel ne ñoom sëñ Afé Bousso tey nga xam ne tey jàngal kilifa yu bari tey ñoo leen jàngal fii. ñoo am ay 30 ay 40 ñoo leen jàngal ba jàngal leen maqaama ak xalil ak soxoraawul jaahiliya su ko defee tey dëkk bi dafa fees dell ak i boroomi xam-xam nit ñoo xamante ne dañoo jàng ba jeexal génn jàng bitim réew dikkat di jàngale li nga xam ne mooy alxuraanul karim di jàngale li nga xam ne mooy xam di jàngale li nga xam ne mooy sayaatul islamiya nga xam ne université yi gën a màgg ci àdduna bi tey boo leen fa yóbbuwoon tey dañuy jàngale dañ fay teg loo xamante ne bi tey dina jaaxal waa àdduna lu mel nii masalikul jinaan kon nga gis ni Sëñ yoonam bi yoonu xam-xam la kiraamati xattu yaddi kiraamam dëgg dëgg dëgg boo koy wër nee na demal ci li nga xam ne moom laa la bind soo ko defee kon ñu ñu orienté nit ñi ci débat lan mooy xam-xam ci débat wu li Sëñ taalif ci débat mbind mi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa bind mu nekk mbind mu yéeme ci débat boo xamante ne bi tey Sëñ Tuubaa moo nekk koo xam ne yàlla da koo may lu mu mayul kenn balaa ñu koy jël rek di ko jàngale ci beneen façon boo xam ne bokkul ak li mu jàngale woon looloo tax sëñ Touba léppam xam-xam la léppam daf koo jël def ko ci li nga xam ne mooy téere yi jàng nañ tasawur si xaar yaa yu azibyan la tastaqila anil huda wa bil ulumi staqilu yéen ndaw ñi bu leen soxlawoo lenn lu dul sàkku xam-xam sax ci ak njub te xam-xam bu man di doon na ngeen ko jàng foofu la àdduna toll tey yonent bi alayhi salaatu salaam moo waxoon ne say yaati ala naas la yabqa min al islam ila ismuhu mujj jamono danañ àgg jamono boo xam ne nee ne l'islam tur wi rek moo fi des nit ñi dañ koy tudd rek mu ne wala min al quran ila rasmuhu al quranul karim mbind mi rek nga fiy des waaye surtout bi ak barke bi yàlla du ko yëkkati mu ne jàkka yi dina fees dell waaye doomu aadama yi seen xol dara du ci nekk loolu moo waral sëñ Muntaxa wootewaat ci bis bi bis bi nekk bis buy laasé màggalu Tuubaa gi gis nga ne communauté mouridisme ci depuis ñaari at yu ñu génn depuis Covid dugg ci àdduna bi mooy communauté boo xam ne moo fi dajalee 5 millions de personnes. daaw ci màggal gi bi mu jàllee gisuñu dara ren itam ñu fas yéene duggat ci màggal gi pour jàngal waa àdduna ndax wax naa leen ne leen makkatul mu karama ñu daaw aju ñu ren te dañ leen wax rek ñu naa ne waaw ñu ren aju ñu te mënoon nañoo tey daje waxtaane ko waaye dañoo jël décision bi te déggoowuñ ci ñëpp loolu nag nekk dogal boo xam ne adduna bi yëpp dañ koy ñaawlu yoonu murit wanewaat aw yoon wanewaat xam-xam tey Touba ak Màkki gi tey xam bu waaye mën am ci adduna bi boo dikkee ci Touba ñu jàngal la ñu jàngal la xam-xamu sharia jàngale sa lislaam jàngale sa diine kenn du leen wan aw yoon kenn du leen wan firil xasida sëñ Tuubaa yi baa nga di leen firil li nga xam ne mooy téere sëñ Tuubaa yi ndax ñoo la ko gën a xam ñoo la ko gën a dégg toll nañ ci jamono boo xam ne nag ñiy réeralaate ñoo ëpp ñiy naxaate ñoo ëpp ñi nga xam ne di dañuy firi téere sëñ Tuubaa yi ci anam boo xam ne bokkul ak ni ko sëñ Tuubaa jàngalee mu ëpp ñi nga xamante dañuy lëndëmal ñu ëpp ñi nga xamante dañuy naxaate ñu ëpp loolu bu boobaa dama ne mbokk yi ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax lii rek lañ ne woon dinañ ko leeral seen mbokk Imaam Sall doon leen ko indil ne danañ ci gën a duggaat danañ ci def ay plateau yu bari ba bisu la onze bi bii nekk nag li nga xam ne mooy premier numéro bi nga xam ne mooy plateau spécial ci xam-xam bu sell ak njàngalem Serigne Touba ngeen àndoon ci ak seen mbokk Imaam Sall ak sud bi nga xam ne mooy DTV eh, ITV ak euh, DTV ak euh, Jeune Actu euh, waaxiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin